li ci ñeenti waxtu nag la kii di Hadjibou Soumaré am ci biir tribunal bi waaye bi mu génnee li muy xamle mooy dossier bi mënu ci àddu ndax ci instruction la nekk. mais puisque dossier bi dafa nekk euh, en instruction li ma leen ko waxee woon bu le passé rek je mënuma lu dul dëggal loolu ci sama parki dëggalaat loolu bu ma génnee mu nekk sama doxalin ak sama defin ak sama jëfin. ma bëgg di respecter toujours kàddu moo tax dossier boobu bu ma ci waxee du ma ci mën a wax. loole nag teewul mu àddu jëmale ci situation bu doy waar bi am ci réew mi moom nag ki muy teg tuuma mooy rek kii di président Macky Sall. président Macky Sall moo ko waral parce que nit boo nekkee njiitu réew da ngay am courage am dal bañ a déglu ñi nga xam ne. traversé nañu pouvoir yëpp di la xelal dóoral jàppal force restera à la loi il faut faire ceci wante pouvoir est-ce que jar na ngay seetaan sa réew muy suux nga bañ a taxaw wax ak sa peuple. ba na muy ñaax nguur gi ñu amal ab dialogue bu sincère ngir wàññi violence bi am ci réew mi. des deux côtés il y a des problèmes donc ñun nañ toog suñu biir ñu waxtaan. keroog woote na fi waxtaan. waxtaan boo xam ne da nga woo ñëpp ñu dee tàgg di la nangam ak nangam ak nangam loolu waxtaan la moo yore la clé pour nous sortir de sa Sénégal pour mu baax il faut que ay doomam waxtaan pour ay doomam waxtaan il faut que ñu waxtaan dans la vérité donte sax àdduwul jëmale ci dossier bi nga xam ne moom moo ko indi ci tribunal bi kii di Hadjibou Soumaré di jox wër ma institution bi waaye nag ci waxtu wi mu toll li ko gën a soxal mooy ñàkkum dal bi am ci réew mi